Basile la bu baax bi maa ngi lay siyaar bu baax. Baye Jili ñoo ngi lay fay. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ayyuhal yaxwal kiraam. maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm leen bal àq di leen balu xaq di leen wax weeru koor wi yàlla na nekk sunu njëggal yàlla nañ ko def téeméeri at li tax ñi koy def ak ñi ñu koy defal yàlla na saa borom yàlla xaar leen àjjanay firdawsu ñoo ngi nuyu Serigne Cissé mu Serigne Babacar ñoo ngi nuyu Saa Touba ñoo ngi nuyu Serigne Cissé mi ci des ñoo ngi nuyu Mor Cissé di kenn ci ñun di nuyu papis mi waral fii suñu teewaay ak muuduloo ñuy defee fii mbir yi ci këram ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu yéen waa presse bi di nuyu Jaméricain di nuyu Lamine ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax. noo gisee initiative bi li nga xamante ne xale bi def na ko vraiment yéen ñëpp ngeen dajaloo ci seen biir yéen ñaankat yi ban gis-gis nga dañ ko daan defandoo ak ñoom ñuy dund kon bu ñu faatoo ñun yàlla bàyyi ñu fi ab jàngat la ci ñun li jël ñooña bàyyi ñu fi ñun suñ borom moo ko dogal li may faral di wax mooy alquran dafay wax ni faalu lima yurid wa inna rabbaka labil mirsaadi benn observateur moo am muy yàlla suñ borom moom mooy observer lépp moom mi observer nag ginnaaw moo ñu fi bàyyi jël ñooñu ki ki gën a àdduna dañ ko jàpp otage tiru bi mooy ñu koy jàngal ay fatiha di ko jàngal xul huwallaahu ahad ngir yàlla suñ borom jéggal ko ndax kenn ku nekk barzaq ñun kenn ci ñun mun laax ci lu mu nekk xalaxal mawt wal xayaatu dunya li yablukum ayukum ahsana amalan kon day am loo nga xamante ni rek nu fa dajalee dañuy ñaanal li tax ñi di ko defal ñi fa wàññeeku yàlla na sàbram yàlla xara leen àjjana yi firdaws bi jaaxi saydil wujud Modou loo Ama Baldé noo gisee Modou Lo Ama Baldé lu amagul mënaguma cee wax ndax la ma wax laay wax gisaguma fu muy amee lu amagul lu ma gisagul fu muy amee nag du ma wax loolu bi nga ko dalee wax dafa yàgg gisaguma fu muy amee gisaguma fu muy man nag moom duma wax lu xamul hmm. gisuma gu gisaguma fu muy amee su ma gisee fu muy amee rek bu ngeen ma ca dëppee sama micro la ma cay wax rek dinaa ca wax lama ma xamante ni moom laa xam xam nga heure bu ma nee gisaguma fu muy amee nit ñi di ko commentaire ki xam li muy wax depuis ay at yaakaar naa ni am na ci loo nga xamante ni gisuma ci at mukk lu ko jar. te duñ ci nga xamante ni lu ñu xamul muudu ak ñoom ñaar ñooy bëre ñi ci topp di ci inditation ko bàyyi. muudu ay millions ci ay poosam la koy def ama ay millions ci ay poosam la koy def ay soutien def famille lañ làmb benn tàkku saan la dafay jeex lu fi ñaaw ci àdduna amu ko tey ñii fi nekkan daan ànd ak muudu ci ginnaawam di ko sotti gàllaaj bàyyi ko fi ñu leen du ñaanal loolu rek leçon la lu fi jar lu ñaaw amul ñaata doomu aadama ñoo fi dee ren kenn xamul num toll ay xale kon nañ bàyyi ñaawalante bi bàyyi xasante bi bàyyi saagaante bi réseaux sociaux du pour saaga ñu bàyyi xas gor yi ndax gor ku ko xas dañ lay dóor juróom-ñaar fukki yar kon am na ci loo nga xamante ni lu rafet moo gën lu ñaaw. adduna kenn du gis lu ñaaw di ca jublu. suñu daje bii li ci yàllay nam mu ëllëg suñu borom xam na ko ñun ñi toog fii kenn du la ko wax. xam nga ñaar mooy am ci àdduna mënuñoo wax ndax làmb ji jeex na ndax dat ba passé na. waa mais ki jëm ci xare ki lekk ay millions wara jëm ci xare yaakaar naa xam na fi mu jëm. muudu daa xam lu ma la waxoon nun ay kajoor kajoor lañ te kajoor kajoor yi dama la waxan ni muudu bu bëree stade Iba Mar Diop moog Eumeu Sène bu xandek dogalu yàlla roi des arènes di kajoor li dugg kajoor nag ci suñuy loxo caaxaan du ko génne hmm. waaw ñun dañoo dañoo xam li mu saf jili yéen ñu yor fi presse ñëpp amul làmb ji fi am fii ci àdduna yéen ñi toog bu du dëgg nee leen ma du dëgg hmm. man ni leen làmb ji nii lay demee te virgule du ko dindi loolu jagleeg suñ borom la kon nag làmb joo nga xam dañ cee bokk dañuy bàyyi ba mu am. mais ñii dañu ne yéen jékkuwoo leen ci làmb ji xam ni jékkuwoo leen moo du ne daa blessé mais blessure bi dara amu ci. mais xam nga li may wax sëñ Cissé xam na ni muudu jekk na saa Touba mais xam na ni muudu jekk na hmm. Cissé Mële xam na ni muudu jekk na jekk ak dogalu yàlla wàcc ci kaw nit ki du benn ama mënuñu koo yéene lu dul jàmm ak salaam ndax suñu rak la benn saan la dafay jeex. du dëgg te maa ngi dégg papis di wax ni bi muudu blessé woo na ko loolu mooy làmb moom muudu bu bëriwul ak muudu du am xaalis muudu bu bëriwul ak moom du am xaalis hmm. kon ñi ci topp di wax ludul dul ña lu ñaaw amuñu ci oto amuñu ci dara te ku ci feebar wala nga wax ci nit loo ko wër te wax mbër mi day dem te dem liggéeyi ndaw day liggéeyi te ba tappale tappale yorul réew voilà. jërëjëf jaajëfal bu baax kontaan na. ngi lay fay di la ñaanal jàmm di wax papis ñii ngay ñaanal lépp loo ci def yàlla suñ ko borom ful ndax kóllëre suñu borom da koy laaj ba yowmal xiyaam te kóllëre kenn du ko dog sëñ Cissé su fi ñëwee muudoo tax mu ñëw fi su ma fi ñëwee muudu moo tax ma ñëw fi papis bari na ci kuy ànd ak muudu loxo ma nga ca biir ak Mor Cissé kon dafa rafet su rafetul woon lii du xam ndax xale la maa ko mag téeméeri junni yoon yàgg na maa téye ay junni xamuma ko xamuma muudu kon su ma ànd ñoom rek dafa am lu ma gis ci ñoom man du ma jaay personne du ma wax nit lu ma xamul du ma wax nit lu ma dul def li ci baatin mus naa ko xam naa li mu saf kon am na ci loo nga xam ne alxuraan teral na ma ba noppi kon lépp lu wax ni dama koy wax ci siraatal mustaqim di sant mbooloo mépp di wax ni daje bi yàlla bu mu nekk suñ mujj daje papis li nga font samp nii ak rëy boo demee ba ci kanam nag di nga xam ni li nga def nii suñ borom dina la ko fulal ay teraanga te yàlla sàmm la te aar la te yéen ñi ànd ak mbër yi nag yal leen yàlla aar ndax dafa metti barke salaatul fatiha dafa metti da ngay ànd am na koñ yoo nga xam ni doo fa mën a dem am na béréb yoo nga xam ne doo ca mën a dem ngir jëmmi doomi adama bi doomi aadama bi na wëlbati ko xam ni nit ñi ànd ak moom ay doomi jàmbur lañ suñ dee ànd ak moom dee tayle seen àdduna nañ leen di bàyyi xel ndax bu làmbu xësee taxaw buntu kër mbër mi la ñuy nekk di ko garde koo gënul ab juddu gënuloo ko lépp yàlla mooy dogale noonu c'est très attention ñuy bàyyi xel ci loolu bu leen nit ñi soxlaa ci lu dul na nañuy génn ndax mu innamal mu'minuna ikhwatun bayna akhawaykum nit nit mooy mbokkam lii bu doon làmb du làmb moo ñu booleeti fii ndax sëñ Cissé mais xam na dépasse man am naa depas saa Touba mais am na dépasse Mor Cissé mais am na dépasse Papis joxuma dépasse kon dañoo am kóllëre bu ñuy doxal bu làmb jeexee ñu continuer di ko dox te ñun ñëpp ñoo bokk àdduna ay ruu bu ñuy ànd yàlla da ko xeñtuloo ca aras ñu wërta xànd duñu xànd kon mbër yi nañuy bàyyi xel nit ñi ni àndal ndax mbër kese mënta dem bëri ji ay nit ñooy topp ci ginnaawam di jël ay risque fu ne ñu dem dox fa di fa dem nañ bàyyi xel loolu mais duñ toog rek kilim bi ëpp leen ñuy toog rek di toog di war seen ay oto di aj seen ay verre avant dara kenn nit mënta dem bëri ji mbooloo ñoo lay dar dégg nga wax ji bu baax nañ bàyyi xel loolu nit du fi jox nit lu musta am kon ñii buñ déplacé woo ñëw am na luñ yëg-yëg bu am lu ñuy am ci ñoom mais nañuy bàyyi xel ñi nga xam ne da ngay ànd ak ñoom ba dara dul dara nga dem ba teraa nga ñëw nga soppi aw doxalin man gëmuma loolu. jërëjëf am na solo maa lay